effectivement lola la parce que pexe warul la am ci rapport rapport ARMP parce que ARMP dañ leen pour que sunu alalu le département yi nga xam ko jalgati ARMP marché na procédure ko respecté xaalisu askan wi nañ ko def fi ko war a def loolu mooy rôle ARMP donc ARMP wërta wërta làq kenn képp koo xam ne dañ koo tuumaal ñoom ci seeni rapport dañoo war a jël affaire bi teg ko ci site site ARMP képp koo bëgg gis gis ko loolu mooy yoon mais tey jii nee naa la soo demee ci site ARMP doo fa fekk rapport bi mais loolu mais lu leer naa ñu la man li ma gëm mooy complicité dafa am entre euh, entre ñoom ak ministère éducation nationale ça dañoo génne rapport ba pare gis rapport bi ay Euh, affaire yu garaaw mi ngi ci yoo xam ne peut-être mën na andi coow ñu rocciwaat rapport bi mais bañ avant ñu koy roppi rocci ñun fexe nañ ba am rapport bi loolu moom féete na boor mais dama la tey ji yow soo demee ci site bi mën a too am rapport bi nga xam si mooy tuumaal Serigne Mbaye Thiam loolu nag man damaa jàpp ne amul wër-wëral effectivement ARMP amul droit def loolu site bi dañ fa war a bàyyi tous les rapports képp kuy sénégalais boo bëggee consulter ni ñuy yore alalu réew mi ci département ministériel bu mu mën a doon soo demee ci site bi da nga ko faa war a fekk parce que ñoom loolu mooy seen rôle leeral askan wi li xew leeral réew mi li xew jébbal euh, rapport yi ñin ko war a jébbal bu ko defee ñëpp yëg ko parce que transparence dafa ànd ak nit ñi di xam li xew mais amoo droit di nëbb ay information donc ñun leenu jàpp mooy information bañ koo bañ koo bañ koo euh, publier ba pare dañ koo rocciwaat te loolu jaarul yoon ñun loolu dañ koy dénoncer ARMP bu ñu defee seen liggéey ba pare nañ bàyyi acteurs yi nag ñoom ñu wax lu ñu xalaat ci ñoom seen liggéey mais def liggéey ba noppi teg ko ci site bi ba benn moment nga dindiwaat ko lool du yoon ñun loolu dañ koy dénoncer avec la dernière énergie mais encore une fois c'est un rapport boo xam si ARMP moo ko def euh, euh, andi ci ay marché yu leer mën naa bu doon mën naa laa jox plusieurs dizaines de marché yoo xam ni euh, jaarul yoon yoo xam ne Serigne Mbaye Thiam moo ko def yi ci gën a siiw rek laa la wax yi nga xam ne ñun dañoo considéré ne quand même ay ay ay ay scandale yu garaaw la muy marché livre yi muy réhabilitation bâtiment yi muy marché yi nga xam ne ay travaux la ak ay services et cetera yoo xam ne dafa dafa jalgati dañ cee jël rek dañ cee jukki ay quelque marché mais en réalité rapport bi du début à la fin day tuumaal Serigne Mbaye Thiam ci ni muy jalgatee alalu alalu askan wi ci ministère éducation bi nga xam si moom lañ ko dégg Merci de vous abonner à Pikini Productions. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et laissez un commentaire.